parcelle ngay milité. man euh, kii golf unité kii géejawaay. géejawaay ah ok parce que parcelle gi mu dëkk. Mhm. moom mënu fa mënu fa am ndam ndax sampoon na ndëndam foofu ci maire yi mënul am maire yi. donc ça veut dire que a un gros problème euh, pas problème mais un un gros travail boo xam ne. Mhm. Euh, war ngeen ko abattre. ba mhm. boo fi nga nekk dama leen di boole yëpp ak waa parcelle. yéen lan ngeen di apporter de plus a amadu Ba. li ñu koy apporter de plus mooy dugg ci nit ñi. wax leen kan mooy Amadou Ba. est-ce que wax des jot jot euh, amati na njëriñ. Sénégal am na njëriñ am na njëriñ parce que lu tax ma ne la am na njëriñ euh, bu njëkk peut-être nit ñi ci wax moo indi yu bari fii Sénégal ci wax yoo xam ne amul moo indi yu bari Sénégal par contre soo fekkente da nga dem ci biir ci terrain bi. Mhm. jàkkaarloo nit ki wax ak moom mu dégg la. j'espère que dina am yenn changement yi ñun suñu mouvement li ko tax a jóg mooy leen rek def ba nga xamante ni. dinañ ko jàppale ba nga xam ne ñun yëg nañ ni jàppale nañ ko ñun loolu moo tax mouvement bi taxaw. d'accord alors il nous reste cinq minutes. xanaa ñu yëkkati question yu mënta ñàkk xaar xaar mu ñëw. Ah. <laughs> allez-y. <laughs> dafa mel dafa waajal xaar mu ñëw. <laughs> waajaluma la. ak ah, dégg naa li mu wax sànq euh, est-ce que da nga ne bëgg-bëgg rek le fait que nga am si cofeel nit loolu war na mën a tax nga war mu nga war ko mën Euh, jox kàddu wala nga dajale mbooloo pour mu gagné euh, nekk président. c'est-à-dire que di ma la jëkk wax loolu ñu ci loolu ngay revenir rek nee naa la si liggéeyam ma tax. Mhm. liggéeyam da nga ne da nga ne da ko bëgg mais mosoo ko gis. bëgg naa ko loolu sax kooku moom. mais tamit. non non non du problème yow mun naa laa bëgg. ah bon ah oui pourquoi pas. ok mais man politique am sa cofeel man sa cofeel même pour nga mën a voter leen jox ko carte jox ko sa euh, carte pour mu diriger dëkk bi. su fi largement en plus. Hmm. man pour man dañu war a basé wu ci yeneen par exemple nit ki lu mu def. lan la a mën compétence am la mën a apporter ci dëkk bi. pour man loolu moom foofu lañu war a gën a miser pour que ci affaire sentiment. de toute façon. bés bu ñu ko votelee ba au soir vingt cinq février. Hmm. ñu ne wiiw Amadou Ba ñëpp dinañu xam ni votal nañu ko baax liggéeykat la benn yàgg na ci gouvernement bi. moom continuité Macky Sall Amadou Ba rek moo ko mën. da leen di financé xanaa Amadou Ba. ndax dafay financé nan ñun ñii. waaw financé bi ñu. d'accord alors ah,